mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi seeni bët tàggoo ki nax ki ko mën laa koy jéem ki ne fàng daa nga ne maa ngi ay mbiram. waa delloo siyaara di nuyu ñëpp di rafetlu ndaje bi di nuyu suñu grand Pape di nuyu sama frère Sokh wax dëgg yàlla di nuyu journaliste yeeg caméraman yëpp ah, ñu nuyu ñëpp vraiment waaw. mobile social boobu noonu mooy li ngay wax muy fii ñun ñu fi toog ñëpp am na noo xamante ne nii boo juddoo mu demee noonu boo juddoo mu demee noonu ndimbal dalay yomb mooy tey ñun judduwuñ fekk fi ay étage wala ñu judd fekk fi ay milliards ak yooyu noonu ñun dañoo judd mu métti trop bi muy métti si ñun siiwuñu lii amul ba tey ku nekk mun a toog wax la la métti ñu dimbale la tey la ndakaaru neex ma mën a dëkkal sama bopp wala ma mën a yor jabar wala nii mais danga nga daan xëy da ngay nekk nag nit koo xamante ne yàlla da lay teel a dénk xel nga mën a comprendre nga xëy xool situation gis paa bi génn dem ba midi gisoo maire bi romb la dem marché nga xam ne yaa quelque man ci sama yaay laa xamee yeewu fajar. mu jël matt yi xam bu ba taal bi tàkk mu jël cin li def ci ndox ba mu fees teg ko léegi boo demoon foo yi ñëw yërndu kër ga gis cin li ci kaw taal bi da nga naan ah añ pare boobu mi ngi wuti lu mu ci def. billaahi walazim barki yonenti yàlla moomee bi may xam ne soom bi dafa war a am suukar dem naa ba mesure kilo ceeb rek bu ko sama yaay amoon danaan soom bi bu ñoree rek muti bu noonu sedd lañu ñu añ sans suukar sans dara bi may xam ne soom bi daa war a am suukar yàggul kon yu mel noonu boo ci jaaree yii nii détail la lay def. te man li ma yéem nag ci Sénégal yëpp lenn la ñi feebaru 500000 rey yëpp daju 6 millions la ñuy am. waaw. ñi fi feebaru téeméeri junni rey boo demee seen dëj budget bi day ëpp 6 ndax ku ñu fëggoon pour nga jàpp ci ordonnance bi nga tëj sa bunt bu dëj bi amee nga indi nagu si nagu 300000. léegi détail boobu noonu moo war a jeex ci làmb dégg naa ko ba ku ko posé question léegi soox naan ko association mbëri léeg-léeg lii man li ci soox wax laa ci wax man maa ngi nii. licence bi ñuy dagg ñoom ñu ne ñoo yor association yeeg lépp moom moom la ñuy dagg seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci. seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci man maa njëkk a taxaw ci groupe bi ne leen mbëri ñuy nekk di ketal ci télé bi bu fi kenn di ŋàññi benn politicien wala benn kilifa ñun la 8000 licences ñoo am ci làmb ji. 8000 licences licence bu nekk weer bu dee mbër bu nekk daa war a natt 1000 francs ci association bi nañ ko ñu wax ñaata lay doon ci milliard 8000 licences chaque weer ku ne 1000 francs un an bu mbër bu ngay joxe. maa ko njëkk a proposé bi ma ko proposé xam lañ wax 8000 licences yi ndax da mën a xam ñëpp man leen 8000 licences yi li leen yor ci ay ménageur matuñu 8000 boo woowee Max Mbargane ne ko numéro mbër nga yor yëpp laa soxla jox ko kaye mu bindal la numéro téléphone mbërëm yëpp nga woo Abdoulaye Ndiaye noonu nga war pay baabu ñoom munoo dajale 8000 licences yi woo leen dajale ñëpp biir arène nationale wax leen lan mooy problème mën a commencé suñu taxaw suñu bopp balaa dara xew ni ñuy taxaw suñu bopp nag mooy dañoo bëgg ñun ak suñuy rakk ak ñëpp chaque weer mbër ci biir loolu loolu lu di nga dem xool benn mobile nga xam ne kii làmb du ci am dara association bi dajale seen som aal ko 8000 licences chaque weer 1000 francs ñaata la na kenn jël téléphone am calculé ko chaque weer ne 1000 ñaata la 8000 personnes chaque weer ku ne 1000 francs ñaata la nañ ko def un an est-ce que dinañ fi toog di kettalati mbër. mais tey comme ñun manqué nañ ñàkk nañ mat ñàkk mat boo xam ne defaluñ loolu suñu bopp mais dafa am ñoo xamante ne nii damay dégg gaay naan ndimbal gi du par force wala lii dafa am ñoo xam ne par force la si ñoom. dafa am ñoo xam ne par force la si ñoom muy politiciens yi ñuy tudd naan leen du par force la fii ku fi ñëw di campagne si ginnaaw raay sa xel lim lay njëkk jox mooy nañ xooli soq moo fi dëkk. boo àndeek moom jeunesse bi topp la ku dugg Grand Yoff sa xel loolu lay jox boo duggee Pikine ci kanam na xool Ama Baldé wala Boy wala lii te ñooñu ñoo lay soxla ëllëg nga buntu. nga am sa message boo bëgg a lancé woo pël ne ko àndal ak sa site bi ñëw pël lancé la ko 10 minutes mu wër àdduna pël ñëw sa buntu bureau nga bu ko toogloo 10 heures ba 16 heures ndax yow yaay kan lamb rek moo am Sénégal ñetti ministre fond Covid bi mu génnee lamb ay milliards la waroon téye ministre de la jeunesse ñan la war a jox fu jeunesse bi nekk Sénégal génneel si te génnee Ama Baldé génnee Balla Gaye ñu dem amitié nga woo Macky Sall mu jaar nii nga xool fan mooy fees fan la jeunesse bi nekk culture boo ko génnee ci lamb lan moo ciy des. ba pare ñu amaat ministre des sports ba pare ñu am ay mbër yi am ay problème 6 millions pour faju bu dee woon léegi ñu ne njaalu mataar ba ñëw na 3 millions la. léegi ñu ne njaalu ministre temps ñëw na 1 1 million la balaa tàkkusaanu balaa heure rob bi jot booy bi dajale fa 15 millions te 6 millions ko waroon faj après boo ko waxee dañuy wax booy dañ ñàkk yar comme nii la ñuy waxee bul ci jàpp bul ci jàpp. boo amee ay milliards yoo xam ne da ngay xaar ku la wax lu dul dëgg pour nga jox ko ko téye ko doo ñu ko jox ndax fii lu waay fen ba jot ci boo waxoon dëgg yaa ko moom. dëgg lañ leen di wax ñu bugg ko dégg loolu moo nekk ñu ñàkk ko bëgg a dégg loolu moo nekk problème bu booy bi nag muy booy Malika ni ko sawaay seetaanee loolu laa ko seetaanee léegi léegi léegi léegi laa xam ne lii day am léegi la ma woo ma léegi lii ma ne ko coupeel maa ngi nii ci yoon bi di ñëw parce que xam la moo tax ëpp ñu ko ëpp ñu ko sañ-sañ dàq ñu ko entraîné ëpp ñu ko doole li ko téefee ba muy woote di ñaan dimbal du yaafuusam li ñu téefee ba ñu toog naan ñoom ñoo koy waxal du suñu jàmbaar te ñun leer nañu leer yàlla ne lii ñuy wax nii du problème ci kilifa yi ñu koy adressé nii. billaahi wallaahi wa taalaahi ku ci sa doom tëddoon 14 millions war koo faj romb naa 6 millions yi 17 lay wér kon lii ñuy wax du kaa si ñoom nañ ci jàpp te yàlla moo tax. parce que doomu réew mi la ëllëg xamuñu lu muy jëriñ réew mi Sénégal nag rendre hommage moom pour ku dee la fi ku dee rek moom moom rendre hommage fii dañoo war a jóg nag ci détail boobu noonu. waaw tey il est temps pour mbëri xam ñoom lan la ñuy posé Sénégal man dama jàpp ne mbëri bu ñu demee amitié def ko gise ferme du ñu xool ñan ñoo waral lii quoi. parce que gise ferme pour mu am amitié ci politicien mooy bis bi président bi di waat jour boo gañee nguur gi te mbëri maanaam at bi yëpp dañ koy boole di gise ferme amitié mais mbëri ba tey xamuñu la ñuy posé li ngay wax nii tey dafa am mbëri yoo xamante ne nii Sénégal parce que tamit sunu borom mooy cërale ah. faa ñu nangu ko ñun ñii am nañ ci ñoo xamante ne nii ci làmb ñun rek lañ teg ba pour bëreeg ñun tey ñun am nañ tamit fu ñu ñu ñu féete ñooñu tey ñooñu nga xamante ne seen làmmiñ fu muy yegg amaana suñu làmmiñ ñun yeggu fa li téye seen làmmiñ lañ war a bañ mu téye seen làmmiñ ndax ñoom ñoo ëpp loolu chaque jour nga toog fi gis ku gërëm maa ngi gërëm diw arène nationale bi mu fi sampal arène nationale làmb moomu ko yéen ñii da ngeen a taxaw kaas ko chaque jour soq bëre ba pare wala mobile bëre ba pare daan ngeen war a taxaw def seen bénéfice seen waay fay làmb leen si loo xam ne yéena ko moom lamb avant muy am stade boobam bu ñu daan luyee ay stade ay 400000 la ñuy fay ay 100000 Iba Mar Diop ñu am lamb boo xam ne ñoo ko moom di fay 1 million nangam ñun ñoo ko moom locataire mun na gën a seer nga moom sa këru war a taxaw def seen dernière béréb yi nii ak nii ñu fay lamb yi ñu ne ñun ñoo moom bi mu ñëwee la lamb gën a pëtax tey cas yooyu ngay wax noonu anam bëri mag yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw nga xam ne guddeeg bëccëg li ñuy def ci ay interview li ñuy gisanteeg ponkal mee ko ëpp wax jee fi nekk waa fi mu leen téye ko neex mu def ko ñoom duñ ko wax parce que ku ci nekk des fois say paanu 1 million mu dépanne la say paanu 500000 mu la ciy dépanne loolu du dara da xalaat 900 yu topp sa ginnaaw yoo xam ne li a dimbalee moo ëpp 1 jëm ak ñooñu. fan nga jëm ak ñooñu. jëm jéego ngeen a dox mooy comme li sawaay wax léegi li soo wax léegi mooy fi ne nii li nekk suñu bopp ci ay idée bari na pour làmb li nekk suñu bopp pour ñu war koo waxtaan ak journaliste yi bari na mais li ñu si gën a yitteel fi mu nii gën a nekk suñu kanam mooy suñu kaawu frère bi tëdd feebar bu ñu si paree nag ba liñ koy wutal mat pare nañ pour journaliste yëpp ñëw toog ñu toogaat comme ni ñu toogee nii wax problème bi lan la. bu boobaa ni ñu koy waxee mbëri mag yi nañ ñu dégg kilifa yi moom kilifa yi ñu dénk làmb nañ ñu dégg président président de la république mi jël làmb dénkaane ko dinañu dégg xam ñi ñu dénk làmb nan la ñuy doxalee ci làmb. dinañ dem ba këram seeti ko. dinañ dem ba këram wut ci solution parce que tey nii ñuy def nii tey ku yor numéro sox ngoon di nga ko woo ne ko waa gaynde man de benn 5000 bi laa amoon benn lii benn laa. parce que ku jaarale woon ci loxo sox 1 milliard te 6 millions koy faj dina jël 1 milliard yóbbul ko ko parce que amuñu ci soxla suñu borom mu ñuy dimbale dëgg la métti na buñ ne méttiwul ci ñun dañuy wax lu ñu neex mais suñu borom mu ñuy dimbale. ñu ngi sant yàlla ndax heure bu ñu xëyee fii moom kaase wute rek waaye ku xëy guux heure bu ñu xëyee ci ntaak kër ga wax actuellement moom ngeen defal ko sax parce amaana sawaay bi muy seetaan mbir bi ak fi ko mbir mi toll amul sax amul sax numéro booy Malika wala xamu ko sax laay wax man xamante nañ man xam naa ko dañuy déggante en plus day ñëw ba sama koñ parce que am na ay booy xam ne sama koñ lañ dégg barki dem rek ñu ngi football ak sawaay moom day ñëw ba foofu di seet si booy yooyu semaine bële rek am na sama benn gaayan boo xam ne guddeeg bëccëg ñooy ànd da doon takk jabar moom ñëw na ci takk bi xamante nañ ni quoi mais boo ko xoolee ak par rapport bi ngay dajeeg moom ci dinañ ak yooyu da xam ne yaa quelque chose te am na loo xamante nii warul mën a nekk li ñuy ñaan nii ci ndimbal boo gisee ñu koy ñaan nii ci ndimbal ñun leer nañu leer ne bu ñu deful lii bëri na kër kilifa yoo xam ne bu ñu fa jubalee duñu leen gis te Sénégal moo warul doxee noonu am na ñoo xamante ne uniquement dañuy def pour boo leen tuddee gërëm leen ñu dagg loolu pour mën am lu ñu def statut WhatsApp xaaruñu suñu borom de ñoom nañ ko dund fii ci àdduna mu jeex comme loolu lañ ci jublu ñu ngi leen ñaan ci loolu noonu dinañ leen gërëm lu leen nit musul gërëmee nañ ñu dimbale ci lii ba mu mat rek luñ dugal stat rek dinañ leen gërëm lu leen loo xam ne ki leen may jabar sax gërëmu leen lu toll noonu nañ ñu jàppale ci kaa bi ba mu faju ba pare rek. waaw damay woo ku mel ne Cheikhou Kouyaté sama frère la ñoo dëkk di ci woo ku mel ne Xaarim Joël Yves Braay xam nga ku ci mel ne Badara Kebe di ci woon nitu làmb yi di leen wax ne cas bi bu dee 6 millions la 3 millions yi ci làmb la war a génnee bu dee la 3 millions yi ci làmb la war a génnee soo ko mi yorul fukki junni yu mu toog fii génnee ko mais bu ma ne ko balaa lëndi ñuy dem kër jibi am kër booy Malika da ngaa war a lijjanti fukki junni ma lijjanti fukki junni dina def pexe bu toll noonu ku mel ne Balla Gaye day seetaan lii direct ku mel ne Modou da koy seetaan ku mel ne Gris Bordeaux dina ko seetaan na ci gars yi jàpp. gestes yu rafet yi nañ koy njëkkee gis si ñoom maanaam ñi ñuy jàppale ñoom la war a gis ba ñeme ñu ñoom la ñu war a gis ñoom ponkali ñemee jàppale gars yi parce que dafa am ay kii yoo xam ne dañ ko adressé nitu làmba ah. mooy kilifa boo ci seeti këram sax dalay entraîné noonu ci bunt kër parce du bëgg sax ay doomam gis la dugg ci saalam génn taxañ taxaña benn enveloppe jox la nga dem parce que ñoom ñoo koy communiquer ñoom ñoo koy comporter woo ñoom ñoo koy waxee te fii ministre ak député laa la wax ku ci génn sa kër dem yendu jël mbër toog di xool budget tout la journée nan lay demee nan lay comporté woo ci kër gi nga xam ne kii li muy daj dajoo ko kon nañ jox suñu bopp valeur bi ñu am nañ jox suñu bopp valeur bi ñu waaw waaw pël ci biir loolu liñ siy dolli ah. ci biir loolu noonu liñ siy dolli ah mooy gars yi damay dégg sànq ba tey sox na ko Pape message na ko mooy buñ demee ba kër ki feebar. dinañ jéem a lijjanti numéro am xam nga pour xam fan lañ ñi ko bëgg a ji arrêt am na ñoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi yii rek la ñuy wër am na ñoo xam ne ñu ci àdduna bi te yii rek la ñuy wër te amuñu temps gis nga fi ñuy toog noonu seetaan ko fa la ñuy bëgg a def seen réaction léegi parce que bu ñu jógee ñu ngi ci yeneen ku ci am numéro Sokh wala numéro Pape Sarr bëgg cee jàpp yónnee ko ko léegi Sokh bu amee numéro fii suba ginnaaw suba da koy transféré ne la rek ku ci am numéro léegi léegi léegi léegi dugal leen ko ci numéro sox dugal leen ko ci bande annonce bi numéro Pape Sarr dugal leen ko ci bande annonce bi ku ci am loo koy jàppale envoyé mu ñëw ñu toog dagg seen yitte yëpp di ci def nii te yàlla tax amuñ soxla ci dërëmam loolu la ñuy wax leneen li ñu ciy dolli quoi di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ne di wax ne làmb lii rek mooy njëriñ gi mooy am suñu mbokk suñu nawle suñu frère mu toll ci diggante gars yi jël ay adversaire rek ay maa dëkk feek ay maa dëkk feek teg ko nële ñëw toog pour lee fi ne nii koo ci doon woon nii sax pour contrat léegi léegi day yeggal lii muy def ba pare parce que loolu mooy àdduna parce que ñun ëllëg xamuñu ëllëg xamuñu mais lu ci mën a xew ba mën a xew ci li ñuy dox ci làmb yi ñu nekk bëree lañ ciy def ñu ñuy fay ku ñu yëg ne dañoo war a jóg pour taxaw man boog man pare naa pour ñu jóg taxaw ci lépp te li ñuy def nii defuñu ko nii pour lancer ko ci net bi nag après soq dem nekk ci li muy nekk wala mu dem nekk man bu ma nañ pour ku war suñu oto ànd tànk ak tànk man ak moom ba lii mbër bu ci ñu ñëw sa buntu kër sukkal parce que ñun bu dee suñu soxlay bopp yow xalaatoo ñu sukkal suñu soxla mais nag fi mu toll nii bañ ñu ci suqal sax boo xam ne suñu adversaire nga uniquement pour ku ci def ña xam te pare nañ pour sol suñu dàll dox kër mbër yëpp te dinañ seeti ñëpp nag képp kuy mbër nekk fii ci réew mi dañ la seeti ndax ñoom ñooy suñuy mbokk léegi nag ñu si paree keneen koo xamante ne soo am na fa yaakaar wala ma am fa yaakaar nañ àndaatee noonu suñu délégation ñëw sa kër mais ñi nga xam ne dañuy takk ngembu laa la képp koo xam ne am nañ ci yow yaakaar seentuñ ñi ngi ñëw sa kër xeebuñu leen luñ ci am dina yegg ci kiñ koy dimbalee bu soobee yàlla yee eh, mais nii nii ñu toll nii ku ci am loo ko bëgg a dimbalee yor numéro Pape Sarr yor numéro Sokh dugal ko ci dina jot parce que tamit am na ñoo xam ne bu ñu toogee seetaan ko léegi dañuy jël seen téléphone pour am lu ñu transféré mais dégg nga ne non après naa wuti numéro bi te bu jógee ñu ngi ci yeneen ak yeneen amaana seen téléphone sax semaine ba semaine lañ koy laal day xaw a métti ku ci am loo ko bëgg a jàppale rek te yor numéro Pape bu ñëwee si jot ku ci am a jàppale man moom bu ma kenn envoyé ndax man baax naa loolu mais aw ma ngoru xaalis man loolu mooy sama problème man aw ma ngor ci xaalis boo ma envoyé rek sama mën naa ma ko dimbalee rek mbokki Sénégal mbokki réew mi